waa euh, Mamadou Dieng Thiès 24 point comme di la gërëm di la xamal ne yaay invité bu njëkk émission politique bi ñu duppee Palabre ñu di la sant di la gërëm di la bàyyi nga ñëw ñu lay seetaan. Euh, asalaamaaleykum mbokki réew mi asalaamaaleykum mbokki àddina bi di nuyu ñëpp di la santit di yéen waa Thiès 24. di leen ñaanal ci seen euh, télé à ligne bi di it sant ci li nga ma ne man maa jëkk a ñëw ci seen émission politique yi defal nga ma nag lu rëy ci man ndaxte wax dëgg émission bu toll ni ci sit boo xam ne àdduna bi yëpp nga koy seetaan nga wax ni man man lañ ci jëkk invité loolu sedd na xel kontaan naa sant naa la gërëm naa la wa salaam. jërëjëf Mamadou Dia ni wi euh, laaj bi ma lay jëkka a laaj euh, yow liñ la xamee woon mu yaa doon responsable communal PIT. Euh, seetlu nañ ci élection locale ñaari yu weesu yëpp muy 2009 muy 2015 euh, baneen baneen langue nga demee woon léegi tey euh, lan mooy sa diggante ak PIT sa relation ak PIT. fan nga xool waaw waaw ah jërëjëf Mbaye Sam Thiès 24 boo lu tax am ma ak PIT ci ñaari wate jàll muy 2009 ak 2014 ah kay PIT laa am. te man maay responsable PIT fii ci commune cees Thiès 2014 ci Thiès Nord ànduma ak Benno Siggil Sénégal dama feddi woon géew di sa sekk demal sa bopp bañ bokk ci Benno Siggil Sénégal. ba daje dajale samay nit dajale waa dëkk bi dem ca case foyer de Mbindefal. dajale fa mag ñi imaam yi ñëpp bëgg a dem Idrissa Seck woo ma ne ma jaru ko kaay ñu ànd ma def la tête de liste def la maire ma waxtaan rek ba bàyyi waxtaan ba àgg keroog sax deuxième waxtaan wi mag ñi dañ ma ni demal nga wuyu Idrissa Seck te nga fekk fekkaat ñu fi ma dem wuyu ji ko ñëw wax leen la ma juboo ak sa Seck rafet la ko moom mu les waa PIT yi ma dajale waa PIT yi sama kër maag ñoom maag ñoom maag ñoom ba 4 heures ñu soog ci ànd ak man fii ci noor bi PIT àndoon ak réew mi lam ma waxoon nag ne ma dinaa la def tête def la maire def ko at moom mais teewul ma ni waa yi loolu jarul yàq coalition nañ leen ànd kon ne liggéey. la ca màcc màcc ca man ma dem à la ville nekk fa adjoint au maire ñu bokk liggéey 2014 ba mu dikkee PIT nekk ci Benno Bokk Yaakaar Idrissa Seck génn Benno Bokk Yaakaar moom may bokk ci ñi animé Benno Bokk Yaakaar sama mouvement ba ma amoon en 2009 maa liggéey di ko doxal mouvement bi. nekk ci Benno Bokk Yaakaar Macky Sall dal ni Thiès Nord xam naa dooley Mamadou Dieng ak entente citoyenne na Mamadou Dieng jiite Benno Bokk Yaakaar nekk fa tëdd tëdd liste et candidat maire. loolu lu ko yàq nag finalement. waaw li ko yàq mooy waa këram dégguñu ndigalu seen njiit seen njiitu parti la mu leen sant ànd nu ak moom ñu di ko xeex. di ko di ko xeex di ko xeex man ma xam ni ñoom ëpp ñu ma doole ndax su ma génnee waa PS yi zone nord dañu dañu ma topp waa AFP yi topp ma waa LD yi topp ma benn xaaj APR topp ma may may yaatal ko nag ak moustache dina yi ak ñeen ñeen ak ñeneen looloo matam ma dem ñooy ñooy topp ma ah ba du demee ci ci joxante ba ba ñëw xam nañu suñu àndoon ak man ñun nga doon gañe léegi ban ci tiire nag. bilan bilan ba ma ca tiire ba bu bi mooy xajjaloo bi moo xañ Benno Bokk Yaakaar la commune wér dégg xajaloo bi moo xañ Benno Bokk Yaakaar la commune nord xajaloo bi moo tas yaakaaru askan bi ndax ñëpp jàppoon nañ ni Mamadou Dia dina gañe zone nord ànd ko ak Benno bokk ba bokk yaakaar man nag sama groupe nag ñun ñu dem am nañu lu ñu am tiire nañ ci bilan que division bi ci mois bi ñu toll tembe ak fi Thiès toll ak fi adversité bi toll unité moom moom moo mën a régler problème bi bu ñu xajaloo mën naa jafe ci ñoom. mais yow unité boobu naka ngay yaakaar ni war nañ ko mën a jafe ba mu mu am fu nekk nii. unité bi ñun ñu bokk ci mouvance présidentielle war nañ ma déggoo. bi ñu demee ci wote ba kenn ku nekk natt nga say doole te benn candidat lañam léegi muy le président ma ma Macky Sall su fekkee dem dem nañu référendum bay dem élection kon nag nañu xool ci ñu objectivement ñun ña àndoon kan moo ci ëpp doole politique affaire rapport de force la képp doole na na jitu kenn topp ca kenn topp ca mu nekk mu nekk unité am ñoom cohésion jàppale suñu candidat falaat ko Euh, bu ñu dellusiwaatee ci local yi nee nga léegi président yow la tànnoon yow la tànnoon pour pour teg la fi mais loolu concrètement yan fee moo ko fànq ah donc président moom loolu am nekkoon ba ba bi mu ñu recevoir gouvernance duñ ci doon doon leen benn presse bi wax nañ ko bind ko fële président moom mu nekkoon jógu ci ci bu wata ba dikkee it dimbali la Benno Bokk Yaakaar zone nord man tamit dimbali na ma te la ko fanga ca waa këram la ñoo ca d'accord woon nit ñi man duma leen jiitu ca duma nekkit seen meer waaw man ma xam ne maa leen ëpp doole njëkk la ci terrain bi man nekk ci bi pendant quatre ans di ko liggéey ñëw ñëw si ma ci terrain bi man ma xam sama doole fa mu toll ci terrain bi seen njiit natt ko ba xam ko parce que il a les renseignements généraux il mun leen topp leen ci ginnaaw jee d'accord ci ñoom ñëpp tant qu'ils sont dul Thierno Alassane d'accord ci Thierno Alassane rek mooy nañ def li président wax des ñëpp dañoo dañoo fefe di géew résultat yaa ngi noonu bañ ca bañ boo na nattee ñoom lañu am ak la mu am rawat nañu sunu adversaire yi lu sori te man sama base di mel ne fal kenn rawu ma sama baat ca kaw sama base ci Médina Fall kenn raw ma fi voilà. diggante PIT est-ce que ci maa ngi ci maa ngi ci niim jëli naa leen les cartes ndax dañu bëgg a dem congrès ñu war a renouveler jox naa carte yi le trésorier de la coordination communale démb maa ngi woon ci. le comité préparatoire du congrès maa ngi ci commission bi war a réfléchir sur les statuts et l'organisation kon nag ba tey ba tey maa ngi ci PIT. mais bu Mamadou Niang ak mouvement bi est-ce que mën nañoo xalaat ni ëllëg war na mën a dem ba ba ber langue politique bu boppam. Euh, ber langue politique déedéet xalaatuñ ko te mënul nekk c'est un mouvement citoyen xalaatuñu nag. langue politique mais c'est un mouvement citoyen on s'intéresse à la politique mais c'est pas un parti politique sa vocation n'est pas son vocation du ëllëg ñuy constitué wu en en parti lu tax ñu créé mouvement bi lu am solo la dëkk bi fii bare nañu fi nekk nangu ñoo bokk PIT wante nangu nañoo jàjj jàppale Mamadou Dieng xam nga li sos mouvement bi dañoo wote woon 2009 à Paris ay nit jóg di dox ak seen tànk lu war a mat ay juróom fukki nit téeméeri nit ñëw ba sama kër di ma ci yow bi ñu watee Paris loo am ci wate bi li ma ci am de mooy nekk naa adjoint au maire ca ville bi ñun ma ñun daal dañuy dooleel suñu boor dooleel suñu boor te ñooñu bëgguñu moo fekk si ci sans biir PIT bi te nangu nañoo dooleel seen boor te seen boor mooy Mamadou Dieng ñooñu du du du ma leen sa sa ma ànd ak ñoom loolooy cosaanu entente citoyenne kon ñoom politique ñu maanaam politique wu bokk ci parti te nangu nañoo ànd ak Mamadou Dieng def ko seen njiit ci ci ci ci mbir di dëkk bi ma leen waaw aywa nañ leen dem loolu mooy cosaanu entente citoyenne wante politique ñu ci parti politique duñu dem nag bay mouvement bi di nekkaat parti politique ndaxte waa parti socialiste ñu ngi ci biir mouvement bi waa AFP ñu ngi ci biir mouvement bi waa LD ñu ngi ci biir mouvement bi en la personne de Abou Diop les Moussa Dina ñu ngi ci biir ak ñëpp te ñooñu bokkuñu PIT comme juboo nañu ci geneen làng nañ jàpp làng ah, boobu. waaw ci wàllu koom. Mhm. la ci waaw ci wàllu koom. maanaam économie. économie jëm ci. jëm membre yi daal. ci membre yi. Mm-hmm. ah muy laaj bu ma neex ndaxte loolu sax moom moo mën dajale fii bi may def campagne dama ne leen dinaa créer sama falo la banque municipale yàlla def fa falo ma mais maag sama ñooñ yi créé nañu la banque citoyenne tey dinañu financer. 40 groupement de femmes 40 fois 10 ça fait 400 femmes dinañu financé ci sunu banque citoyenne boobu en relation ak ak benn établissement financier de la place mbir maa ngay dem dañoo dañoo amoon tey fii ay réglage moo tax ma ñëwoon fii pour ñu defar ay yenn arbitrage loolu loolu tax nga nga nga fekk fekk fii. c'est bien parti signé nañ convention yi ñun ngi dem donc j'ai pas pu réaliser la banque municipale parce que je ne suis pas élu mais je vais réaliser la banque citoyenne au profit des populations de Thiès. ñu ñu dem ci benn question bu jëm ci au niveau national euh, mbirum mandat président bi mi lëmbe ci réew mi. Mhm. ñii ngi naan daf ko war a wàññi ñi naan waru ko wàññi te moom dafa diggee woon ni dafay bu faloo daf koy wàññi euh, lan mooy sa position. Ah, ah, muy laaj bu am solo bu neex wax ñëpp war nañ ci wax ñëpp war nañ ci wax mais wax avec ak xel ak prudence président moo jël un engagement personnel te su ma faloo damay wàññi sama mandat bi di defoon sept ans dama koy def cinq loolu méngoo ak assise nationale ya liñ ñu tëraloon ah yàlla def falu na te coobare boppam la du yëfu partim du yëfu réew mi yëfu Macky Sall la personne dañ ko war a jàppale gor ca wax ja ngir jàppale ko dooleel ko ngir lam waxoon mu def ko mais ku ko ciy dig nag du waxu puusoo ko ci waxu ngor puusoo ko ci waxu dëggu ci li ñu tamoon wax wax waxet ña ngi ko ciy dugal te ñi ko jàppale woon ba mu faloon mooy la population des assises ñoom dañ ko dooleel ci waxam booba ci suma faloo dinaa indi mandat bi cinq ans ne ko assise yi bëggoon nag nangu na ko muy engagement personnel am ñëpp nañ ko bàyyi Sénégal dëkku ngor la ñu pousse ko ci ngorom la mu waxoon mu def ko wàññi ko cinq ans léegi nag ay ñooñam muy ñun ñii wàññee cinq ans mu nekkaat suñu candidat incha allah dina gañe fekk la mu waxoon def na ko te te te gañewaat na am na droit. réformer la constitution constitution bi moo ko ko may mu proposer ab réforme de la constitution par référendum mi ngi ci yoon wi nañ ko dooleel ndax mu méngoo ak waxam képp nag ku koy xeex poussé woo président de la république ci respecter sa kaddu te moom joxoon na kàddoom te moom koo xam xam ni nitu kaddu la kon nag dañ ko jàppale mu respecter kàddoom Euh, Mamadou Dieng sa kàddu sant leen gërëm leen sant population Thiès sant euh, waa réew mi yëpp wate bi passé sama dëkk siggil nañ ma siggil nañ ma ndaxte li ma fi def am na sax ñoo xam ne dañ maa contrôlé ci wate bi ba ñu demee ci yenn télévision yi nangu nañ ni li Mamadou Dieng def foofu kenn kenn mës ko koo def kon nag it maa ngi santaat ñooñu. sama mouvement bi en entente citoyenne tey jàpp naa ni c'est le premier mouvement de Thiès ku weddi xoolal li ma ma dajale ak ñoo ñoo ma xam ay nit yu responsable des hommes de valeurs des femmes de valeurs ñoo ñëw téye mouvement bi di ko doxal léegi rek laa mujj rencontré benn groupement de femmes c'est extraordinaire ndax la xew foofa ak la la ñu wax plus de cinq 500 femmes joxe seen parole d'honneur que dinañu jàppale le mouvement entente citoyenne dem ci ak ñoom ba ba mu jeex takk takk takk lii nag mouvement entente citoyenne yàlla def na ci baatin mu ngi dox bu baax a baax a baax yàlla na jëm kanam yow it nag Mbaye Samb ñoo ngi lay ñaanal di la gën a encourager di la ñaax sa liggéey bi ngay liggéey. yaatu na nit ñi naw nañ la ci nit ñi gëm nañ la ci ba léegi yaa ni wétri ci suñuy bureau ak su suñuy service ku liggéey ba sonnit Thiès 24 lay jàpp xoolaat ñu jot information yi décompressé tuuti kooku na liggéey bi kon nag yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla xeeb dolli sant nañ la gërëm nañ